ma bëgg nag ay question yu ma leen bëgg laaj ci li la dénk ban place la PSE jox télécommunication monsieur le ministre lan moo tax ministère bi kenn du ko sentir ci wetu population bi lu dul aide aide la aide la presse jot na wala ngeen tëj ay organe de presse privé kese mooy tax population bi sentir ni ministre bi am na ndax fi may wax a yow ci nguuru mag Sall ci leen tëj seen TV tëj si wal fajari jàpp si ay journalistes yu toll nii yi jàpp yépp monsieur le ministre am na fii benn procès programme boo xam ne dañoo waxoon ni ñi nga xamante ne dañuy yëngu si mbirum presse dañ leen di aar ba nga xamante ni tey du ñu dugg kaso te loolu war naa mën a am monsieur le ministre aide de la pêche boobu noonu lan moo tax li ñu ko war a séddale jaar la wuñ ko yoon parce que am na ñu baree bari ñoo xamante ni ñu ngi ñaxtu rawat na organe presse ndaw yi ñu jot ñu seen wàll wala leen war a jotuñu ko monsieur ministre lan moo tax tey Sénégal fi mu toll ak nouvelle technologie tey ñu am ay dëkk yoo xam ni mun ñu am couverture téléphone réseau bu baax tey boo jógee dakaar jëm cees boo yéeg montagne bi doo am réseau loolu jaaruwul tey boo demee Touba màggal jot doo am réseau doo am connexion téléphone te monsieur le ministre fii waxoon ngeen daaw dëkk bi ma dëkk muy Doyoli Darou Salaam Doyoli arrondissement Kayel département waxoon ngeen ne da ngeen fa benn antenne boo xamante ni comme foofu day am dëkku religieux boo xam ne day am ay événement pour ñu man am ki yow yaa ma ko digoon ba teg dégoo fa sa tànk bëgg naa aussi lu ngeen ñu wax ngeen sàmm ko nee nga ba Cheikh Abdou Badou yow sama xarit nga Doyoli sañ sëñ sëñ Abdou Dia Doyoli rakk soxna faj mu sëñ Tuubaa moo jur sama baay dañuy def màggal ku jot dinaa ñëw foofa defal leen fa antenne boo xam ne bu màggal amatee leen yaa ma ko waxoon lu tax defu ko ah léegi nag moom amul problème bis moom dinaa ko woote toog xaar comme maanaam ñetti weer moo leen fa dese fii ak ñetti weer yi nagal gi le 31 décembre jëm janvier la bu ngeen fa deful dara su boobaa maanaam da ngeen ma déggaat wala boo fu ñëwaatee doo wat du du du du ma woote bis bi li nga xamante ni monsieur le ministre bëgg nañu wax si mooy bëgg sama xar yëpp ñu ngi ñaawlu saaga yi waaye gis nga saaga yi. mi ngi tàmbali si ku ñuy wax Souleymane Sil Diop bi mu nekk Canada moo daal saaga sëriñ saaga na alaaj baaram bu sëñ Fallou saaga na sëriñ Abdou Assis yi Macky bi mu faloo la ko fal teg ko si wetam jàpp nañu ñi saaga ñëpp ku saaga ñu fal parce que Souleymane Sil Diop saaga moo tax mu am poste loolu mooy li wér léegi nag comme saaga yooyu na moom def na ni ñu nekk bitim réew bu mu saagaa kilifa diine wala ñu saaga un produit ñan àndal ñoom bu ñu faloo ñu nome leen parce que am na ñoo xam na nañ sax ay conseiller conseil foofu noonu ay consulat ci seen dëkk ya nekk ni buñ gañu yeneen nekk consulat yi foofu moo tax ñu ko ni saaga loolu dong la sa wér merci jërë ngeen jëf